publier waaye itam gën ko commenté bokk na ci càccum xale gi nga xam ne nii jamono ji dañu ko nemmeeku ne euh, daanaka bi ñu ko nemmeekoo euh, ci Sénégal ak léegi xaw na yàgg lool waaye nag dafa fekk ne fan yi moom dafa gën a mel ni tulleeg màlle ci Sénégal ak li ko wër ndaxte boo dee xool bari na ci ay xale yoo xam ne dañuy réer ñu toppaat ci di wër doo euh, circuler ci li nga xam ne nii presque yéeg a wàcc ci réseau sociaux yi te gisoo ñu demandé à que nañu nañu nañu lañ leen jàppale partagé xale bu réer ne ni ñoom ñoo ci am ni kiy démb ak tey bokk na ci euh, xale boo xam ne nii ca Pikine la ñu ko jëlee waaye tam am na xale boo xam ne dañu ko jël ci Rufisque bi gën a marqué ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi bokk na ci xale bi nga xam ne day wuyoo ci turu Aïda Diagne te ñu mm. sàccee ko ca pikin Nord ñoom nag li nga xam ne ni moom mooy ay version yu bari gis nañ ko ci mais nag gis nañu version boo xam ne kii di raku papam moom la ñu daal di taataan ay kaddu mu dal di wax ne rek xale bi daal yaayam dafa aye nekk ci kër gi di togg bàyyi ko ci kër gi ñu daal di euh, gis ne xale bi nekku fa d'un moment à l'autre nag ñu daal di euh, génn di ko wër am benn dëkkandoo bu ne gis na euh, koo xam ne nii dafa voile benn jigéen la bu voile xaw a teint nii moom moo ko yor mhm. euh, gàddu xale bi di dem ak moom lu ni mel nag tax ba ñoom ñu dugg fépp wër ko mais nee na dañoo yendu ba ngoon di ko wër gisuñu ko seen xel daal di ñaaw nag bi mu defee bi ñu defee noonu ki ko daal témoigné ne gis na benn jigéen bu teint clair daal di muuru yor ko dafa yaakaaroon ne rakku yaayam la ndax ni mu ko yoree dafa am audace yor kii ko di génn koñ bi noye nañ daal Sénégal ci la ñu nag daal di dem ca police dem fépp foo xam ne rek yoon may na leen ko pour daal di euh, def benn li nga xam ne moom moo di déclaration nee na aussi dem nañu sax ba euh, li nga xam ne moom mooy banque yi nekk à côté ak boutique yi nga xam ne dañoo am ay caméra de surveillance nee na bi ñu demee dañ leen a laaj këyit bi leen ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa police jox mhm. ngir ñu mën a dem ci euh, caméra de caméra surveillance yi nga xool ana ki ko jël fan la jaar ak moom ak mhm. leneen mais nag dafa nekk lu teexel mhm. parce que su fekkante ne comme ni ma gisee dem partage ba tax tey ji ñu indi ko toile ne ku ko jël la lim ci bëgg rek yomb na hmm. xëy na ba léegi nii fi ñu waxee ak yéen xale bi feeñ na amaana hmm. nag yàlla mën naa def ni ki tey jii incha allah ñu xëy léegi mu feeñ te yàlla na ko sunu borom def mais hmm. daal di ci louche bari na tax ba ay mbokkam waaye tam ñiiri internet yi ku ci nekk rek euh, lu ni mel naqari la ba ñu koy partagé de même que am na ñu xale bu ñuy wax ne euh, ca euh, Rufisque aussi dafa réer te dañuy wax ne jamonoy élection heure buy ñëw rek presque yaay yi seen xol seen xel yi du dal donc dafay nekk loo xam ne ni aussi lu jara bàyyi xel la di téye xale ci biir kër yi mhm. xale yi nga xam ne dañoo ndaw ndax kii boo dee xool xëy na bu amee deux rek ci la yem mhm. donc nekkagul koo xam ne euh, dëgër na dëgër boo xam ne war naa mën a génn ci mbedd di taxawaalu mhm. te nee nañ ci biir kër gi ci boppam la ñu koy jëlee mu mel ni xale yi sax pour sàmm leen sax dootul yomb ndax ba ci seen biir néegu waajur yi dañ leen fay fekk ndax bu ñu fàttali euh, euh, amoon na fan yi passé rek koo xam ne ci biir néegu soxna xale bu jigéen bi la dugg fekk fa ay séex daanaka doon leen sàcc ba ñu jàpp ko xaw a tas yaram beeg yu ni mel donc mu nekk loo xam ne nii jar a baax. Mhm. jar naa bàyyi xel et puis je me dis caméra de surveillance yooyu ci ci diggante dëkkandoo ak moroomam est-ce que jaroon na ñuy wax est ñu xool ndax am nañ autorisation pour jàppale leen rek xëy na. Mhm. ñu xam ñan ñoo def jëf ji je pense que ci digg nit ak moroomam. ci diggante boobu rek waroon nañ leen mën a jàppale ndax ñu xam yëf yi du mu demee. surtout surtout ça mhm. xëy na waaw comme ni ñu koy waxee rek nañu ñaanal xale bi mu daal di feeñ ci jàmm ak salaam incha balaa ngoon ay mbokkam teg ko ba dañuy ñëw ci leneen ci information bokk na ci combat bi amoon niki dimanche bi passé fële ca arène nationale bu euh, ba nekkee ca Pikine mu doxoon ci diggante soq mi nga xam ne euh, Pikine la dëkk ak franc mi nga xam ne parcelle la dëkk boobulee euh, làmb comme ni ñu koy waxee rek defati nañu seen manin ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñooy amateurs yi nga xam ne ñoom ñooy dem ca làmb jaak ñeneen ndaxte li fa tukkee daal dinay nekk loo xam ne daal dinay ñaaw lool lool lool ndax fi mu commencé bokk na ci ay chaise yoo xam ne dañu ko doon mu nekk chaise stade nga xam ne nii bu fekkee ni ñii ñu ngi wax ne dañu ko may ñii di wax ne nguur moo ko frais lu mu ci mënti doon rek sunu alal la te nekkoon na loo xam ne ñoom way làmb yi doon nañ ko jooy boobu ak léegi ba ñu ba ñu defal leen ko nekk na nag loo xam ne ni xëy na ngi bëgg am di amaat ak amaat situation yoo xam ne day répété répété wu la donc indi nañ ko fi indeeti ko fi li ci am nag bii dafa fekk dafa am kenn ci euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo seetaan si woon ku ñàkk ba kanam ba tey dëkk ci euh, Pikine mm. ñu koy jaale moom aussi ay mbokkam yàlla seddal ya xam mu mel ni rek gis nga danger bi fi nga xam ne nii foofee lay ñëw làmb la joo xam ne nii di xëy na li taxoon a ñëw amateurs yi dañoo ñëwoon ngir daal di mën a mën a dooleel làmb ji waaye itam ñëw euh, ngir seen bëgg-bëgg ak seen lu leen neex ci seen xol ñu ñëw bëggal seen bopp ci làmb ji comme ni ñu ko defee chaque dimanche mais bu mhm. fekkente ne lii am na ci affaire de euh, de de euh, mal civilisation waaye itam loo xam ne nii day tax kenn dootul nawati làmb ak ñu xam làmb fi mu nekk nii mhm. ni mu daanoo te dañ koy waxte dee làmb daanu na bu baax a baax ndax li mu amoon amatu ko bu ñu gisee ñu defal leen arène nationale pour gën a yëkkati suñu sport national comme ni ñu koy waxee dafa nekk loo xam ne ñoom aussi war nañ cee mën a bàyyi xel mais pas ñuy def ay yëf yoo xam ne ni aussi day tax ñi war a ñëw dootuñu ñeme pour ñëw mm-hmm. wala sax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a organiser lamb yeeg yooyu mm-hmm. ñoom mbër yi war nañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy seen ñi leen di topp à chaque fois ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ñaawteef yi nga xam ne ak situation yoo xam ne ñu ngi ci yóbbu mbër mi bu mm-hmm. baax euh, Salma mu ngi noonu Théo si commentaire yi sax maa ngi gis ñu naan ani gendarme ak policier yi nga xamante ne ñoo bari parce nekkoon aussi ñu bari ñu wax doyul ba am mordom li nga c'est-à-dire que moment bi nga xam ne euh, arène nationale bi nga xam ne moom lañ defar dafa amoon coupure d'électricité mhm. donc arène bi enjeu bu mu am war na am groupe électrogène mhm. parce que bu amoon caméra de surveillance boobu xëy na anaam parce que benn feu euh, artifice lañu sànni mhm. ba mu dal ci kooku ñuy wax euh, Francis ki Christian géeju ki ñàkk ba bakkanam au passage ñu koy ñu koy jaali famille Francis Christian Diédiou am 23 ans donc nag moom moo moom moo génn àddina parce que quatre-vingt-dix-neuf la juddu hmm. donc loolu muy wane ne carrément que tamit am na affaire boo xam ne tamit daf ñoo rusloo ñun banlieue bi ngir yàlla yéen laay waxal yéen mbër yi hmm. dem nañ ndeysaan ba ñu caricature ñun banlieue di ñu ne dañoo violent fitna hmm. mais nañu seetaat suñu bopp parce que lii rafetul si ñun rafetul si suñu image lu xew fitna wala lu ñu dal rek ñu ne ñu ñu bëgg ñu teg caricature ñu. Mm-hmm. nañu defaraat suñu jikko pour bañ ñu ñuy caricature yi xale yi ngir yàlla. Mm-hmm. parce que nii leen kii woon ba ñu kiiwee Assad Demba Diop arrêté fa combat da ñoom waa Assad Demba Diop waa SICAP dañu doon ne alhamdulilah. Mm-hmm. mais nii que ñun ay mal propre bañ nañ loolu ngeen bañ di dugg ci fitna parce fu mu toll nii. dem nañ ba di caricature parce du ñu dem ba lamb jeex. chaque lamb violence dugg ci kër yi. jël alalu jàmbur. vraiment am ngeen si responsabilité bu lourd soo leen gisee seen doom mu yore xaalis mm-hmm. war ngeen xam laaj ko fu mu ko jëlee mu nekkoon message bu am solo waaw am na importance a baax donc balaa waxtu bi duñu xaj dañuy daal di jàll xam ne amoon na ni kii lieu 17 comme ni ko xuddoos euh, indee woon sànq rek mu nekk nag manifestation yoo xam ne yaatu woon na euh, fii ci Ndakaaru bu baax a baax waaye tam ci Bignona ak yeneen ci ay secteurs yoo xam ne Sénégal dund na ko fa ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñooy gérant wu station Total yi dañoo daal génn def ab janoo ak taskatu xibaar waaye itam bécc seen jàmbat ñii nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bu Sénégal nee nañu daal li nga xam ne ni moom mooy lii gouvernement warloo ci protection daf leen koo war a jox ba mu jeex tàkk parce que tam instant bi ñoom ñi ngi joytu fu li nga xam ne moom mooy ay yenn ci seen station yi nga xam ne dañ ko saccagé ak yeneen bokk na ci station bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca Castor waaye itam fële xam ne ni moom moo di ca Colobane de mm. yoo xam ne ni dañu ko dañu ko saccagé mais yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na yàgg nañu koo dund juddu ci ay li nga xam ne moom moo di manifestation na tax na ba ñu hausser le ton waaye dafay bokk ci loo xam ne nii ci ay publication ñii di euh, mbokk internet yi maanaam sénégalais yi nekk ci internet bi dañu ko def ci ay commentaire ñoom ñi nga xam ne nii gis nga lu ci bari bari ci ay euh, commentaire la ñu def moom mooy di leen moquer ñii di leen reetaan am na sax euh, awa ko waxee woon sànq bokk na ci ay commentaires yoo xam ne nii ñii di ñenn ci internet yi def nañu ko nee nañu li xam ne moom mooy total ak fi mu jëmee Sénégal dafa daal Euh, ñoom du ñu xaar ba ñu egg fa parce que nee nañ non seulement ñoom français ñoom ñoo ko moom muy tubaab yi nga xam ne dañoo bëgg ëllëg ki si ñu génn donte ne ay doomu Sénégal ñoo ciy suturlu ñoom ñoo ciy liggéey di am seen seen alal mhm. waaye nee nañ am na ci yeneen yoo xam ne ni cible la ñuy doon heure bu manifestation amee parce que aussi euh, dañoo dañoo bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy français yi génn seen loxo mhm. ci diwaanu Sénégal lépp loo xam ne ngëneel lañ sénégalais yi ci boppam moomal ko seen bopp mais aussi dem na ba ñuy ba am ñoo xam ne dañu commenté naan Auchan ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa total ñoom ñooy euh, li nga xam ne ñoom ñooy sponsorisé li nga xam ne moom moo di manifestation yi ndax gis nañ ci ci biir manifestation yi ay xale yoo xam ne dañu jël seen ay chariot mhm. daal di dem ba ci buntu station yeeg Auchan euh, yi taxaw di xaar mhm. comme quoi bu ñu tàjjee rek ñoom ñu mën a dugg jël loolu tamit ba tey ji day expliquer nee nañu ci biir commentaire yi xiif gi nga xam ne sénégalais xiif nañ ko mhm. mais aussi rage bi ñuy àndal fukk bi ñuy àndal ngir bëgg a yàq bëgg a yàq lan parce ci cantine Modou sénégalais bi demuñu ci cantine ci ci cantine ba sénégalais bi nga xam ne mm. tey ji sénégalais lam daala nee nañ demuñu fa di toj ak yàq nee nañ bu fekkee dañu am cible rek mm. te ñu cible euh, bagage yu ñi nga xam ne wala sax entreprise yu française yi nee na mm. day nekk loo xam ne nii aussi dafa am lu gàllu ci ndoddu xale yi wala sax lu nekk ci seen xel loo xam ne xëy na France dégage bi ñuy wax ba léegi nii ñoom dañu ko saxal ci seeni ay bopp donc nekk na loo xam ne aussi comme ni ñu ko waxee sànq du lu ñu cautionné du loo xam ne nii lu ñu lu ñu lu ñu bu ñu dee xeex tamit nañ ko xeexee ne neen te awa wax na ko sànq te muy lu am muy li ñu jàpp que ay information am na que ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Total ak ñeneen ci ay entreprise euh, française dañuy ñëw fii di euh, daal di prôné li nga xam ne ni wala sax di wane di fësal wàllum LGBT maanaam wàllum góor jigéen yoo xam ne ni euh, xëy na sénégalais duñu leen ko pardonné. bokk na mm-hmm. ci tam li tax ñu leen di songu di leen di saccagé seeni mbir ak. Mm-hmm. yeneen yu mais man dama seetlu que manifestation Auchan pour ne pas de la publicité tey dañ Auchan yi nekk sama alentour en tout cas dama gis ni que yi dañ fa taxaw. le même peut-être pour Total. wala ñeneen ñi aussi loolu. nga ñëwaale en attendant ñuy terminer. Mm-hmm. est loolu poussé Total. gis nañu ne dañu dañu bunkeriser woon li nga xam ne moom moo di euh, boutique bu Auchan yi. Mm-hmm. est loolu ñoom aussi taxul ñu daal becc seen jàmbat comme quoi ni ñu def. waa ñoom it ñu ñuy yooxu wàllu dañoo waroon a njëkkee avant mbir mi di am ñu njëkkee tam est du Auchan li mu li ko daloon lay bañ mu dalaat ko moo tax mu jël ay. ay devant waaye devant wam laata manifestation di am ak yeneen mhm. Salma mi ngi noonu mm. donc dañu jàll ci ci beneen bokk mhm. na ci li nga xam ne aussi moom moo tukkee ci manifestation yu euh, keroog yi yu ajjuma yi mhm. euh, bokk na ci ñoo xam ne nii dañoo ñàkk seen bakkan muy trois personnes yoo xam ne nii ñàkk nañ seen bakkan ñaar ñi ñu doon wax ci début bi que ñaar ñi euh, Bignona waa ak fi nga xam ne moom moo di bii Ziguinchor ci boppam la ñu ñàkkee seen bakkan te li leen ko teg du leen lu dul force de l'ordre ñoom ñoo tiré seen kaw ay balles blancs yoo xam ne moom moo leen faat kenn ki dem nañu bay wax ne sax daanaka daanaka bal bi dafa dafa génn biir bi bay daanaka yu ci bari ci biir bi doon tuuroog yooyu mm. bëgguñu ko tudd ndax du mbiru tele mm-hmm. waaye itam bokk na ci koo xam ne nii fii la ñu ko dóor bal ci ci ci euh, ci euh, waaw put bi ba mu jaaree ci aussi ñàkk ñàkk bakkanam mm. bokk na ci keneen koo xam ne nii fii ci Colobane lu ñu teewe la moom dafa daal di lakk kooku nag ba mu génnee mm-hmm. ba police génnee dafa ñu dañu ne euh, li mu autopsie bi lu mu génnee wala sax ñoom li ñu li ñu jàpp ne looloo ko rey moom mooy dafa daal di yoroon pétrole wala essence di taal ba mu kosee nag la taal boppam mais damaa yaakaar ni aussi ñii internautes yi la police def ba ba génn seen rapport ñoom aussi seen xel may nañu may na leen ba ñu dugg ci internet bi xëy xëy na di defaat yeneen rapport yu bokkut ak ki nga xam ne moom mooy li moom mooy ñoom nee nañu euh, loolee duñu ko duñu ko duñu ko nangu hmm. lu ñuy lu ñuy nangu ci seen xel la parce que euh, ki nga xam ne moo doon moom la ñu wax ne moom moo faatu ci ci ci fi nga xam ne moom moo di euh, ci Colobane du loolu moom moo ko rey ci biir place bi la nekkoon mhm. euh, li nga xam ne moom moo di grenade lacrymogène bi dal ci biir li nga xam ne ni moom moo di moom moo di éponge yi moom moo jafal éponge maanaam moo taal éponge yi ëpp éponge yi ànd ak moom ñi di wax ne an handicap handicapé la handicapé la boo xam ne mënu woon a jóg moom moo tax bi bi affaire bi di tàkk fekk ko ci biir place bi ñii di wax ñi fa ñi fa euh, témoins yi ñëpp di wax ne dafa tëddoon ci biir di nelaw ñeneen di wax leneen donc dafay euh, dafay dafa dul neex ñu loo nit ñi ne leen dafa yoroon essence di taal hmm. mën nga yor essence di taal tàkkee foofu te ñu ko fekk nee nañ tàkkewu foofu ci biir place bi la tàkkee mm. te mënoo nekk ci place bi xëy na yor essence ci biir place bi et puis atmosphère bu ni mel est que nit mën na nelaw aussi ci biir place sachant que ñu ngi taal mais aussi dañoo génne beneen rapport ni ki tey gis nañu suñu mbokk euh, presse bi ñu bari bari xëyit nañu ci ay site internet ak yeneen daal di koy euh, euh, publier ki nga xam ne moom moo faatoo fële nga xam ne moom moo di ca Bignona di Idrissa Goudiaby moom aussi nee nañu police dafa génn ab rapport daal di ne li nga xam ne moom moo ko faat moom mooy Euh, objet tranchant moo ko moom moo ko euh, mm-hmm. faat maanaam paaka moo ko faat wala jaasi wala yeneen moom moo moom moo ko faat moo but ci biir beeg yeneen mm-hmm. yu ni mel te ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi aussi loolu dañ ko dàq ba mu sori nee nañ ñoom mënuñoo gëm loolu te loolu warul mën a am mm-hmm. parce que nee nañu boo dee xool ki nga xam ne moom la ñu faat ci jamono jooju ay mbokkam ay xaritam ñi mu àndaloon ci manifestation ñoom ñoo ko yëkkati di daw di ut di ko utal wallu euh, laataa muy ñàkk ba mm. ci ci yoon bi lañu ko doon yóbbu ci moom mu di ñàkkaale yóbbaale ba kanam nee nañu ñooñu bu fekkonte ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo jamante ay paaka ñoom dinañ taxaw ne ñoom ñoo jamante ay paaka te yaakaar naa su fekkoon jam paaka la wala gor mhm. ka ko ko jam wala ka ko ko gor ay mbokkam duñ ko bàyyi mu jàll mhm. dinañ ko jàpp euh, balaa muy dem ba tax na ñenn ci internet yi la ñu wax moom mooy euh, bu police defee rapport am ñoom aussi seen ay xel day daw mhm. te it seen xel la mu jàpp moom mooy que bal moo ko rey xëy na ñoom ñoo génn seen seen seen rapport boobu te duñu ko gëm tant que justice deful liggéeyam ak def li nga xam ne nii moom mooy euh, mbir mi nga xam ne bëgg nañu mu leer. Euh, euh, famille wam yi nga xam ne aussi fekkee nañ aussi nañ génn wax def sax ñoom dégg naa dañuy ah, mm-hmm. euh, mm-hmm. daal di xamal ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di askan bi leen mm-hmm. di dégloog yeneen ana lan moo faat seen seen doom. ba tax na xam naa ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñoom dinañ ci ànd ak ñun bu ba bu soobee yàlla. ba pour terminer fii nii ci benn Euh, benn euh, information bi mujj mooy ni ki démb waaye yeewi askan wi ku ne xam na ne ñoom aussi dañu doon def démb ab conférence de presse euh, bokk na ci li tukkee ci manifestation yi nga xam ne ni moom moo amoon ni ki vendredi bi passé de ni ki vendredi bi passé ak la tukkee lépp démb xëy na def nañ seen bilan waaye itam wax nañu li nga xam ne ni moom mooy seen stratégie yi nga xam ne fas yéene nañ ko amalaat ni ki vingt 29 bii ñu ngi wax ne dañoo fas yéene demaat defaat beneen manifestation ne nee nañu temps boobu yëpp bëgguñu ko woon a jël mais dafa fekk ne centenaire u El Hadj Malick Sy yi dañu koy euh, def fii te date boobu bëgguñu cee jàpp ay manifestation yoo xam ne dafay am mais tam li ci tukkee ci ay euh, wax bari na bokk na ci li nga xam ne nii moom mooy euh, Ousmane Sonko comme ni ñu koy waxee heure bu génnee rek xëy na ñu bari bari dañ ciy bàyyi xel mais tam ñii di internautes yi dañu koy reprendre ci ay wax yu mu wax mais tam défier waat na comme ni mu koy defee kii di njiital réew mi président Macky Sall mm. waaye tam défier na képp koo xam ne ni ci nguur gi nga bokk wax na tam ba ci presse bi ñeneen sànni na leen li nga xam ne moom waaye itam wax na ci li nga xam ne ni moom mooy concert de casserole mhm. bi nga xam ne ni aussi euh, ñii di internautes yi dañuy cee bàyyi xel bu baax a baax gis nañ ñi ki démb ak tey ba mu ko waxee rek la ñu bari ci internautes yi daal di jóg ci loolu nga xam ne moom mooy boobu boobule wax ñu mhm. ci bari bari nag def ko loo xam ne nii xëy na kafak ree la ñu ci dugg ndax gis nañ ni ki démb ñii di waa université Cheikh Anta gis nañu vidéo bi di circuler ay vidéo sax la ñuy wax mhm. ñu génnoon foofee ca makkaan boobee di université daal di génn commencé euh, tëgg seen i ay boole ni kubéeru cin comme na leen na leen ko euh, kii di Ousmane Sonko mhm, euh, sante waatam dem nañu ba génn ci mbedd yi sax yore seen ay ay lii waaw mu ngi nii yore bu ñu xaaree vidéo bi xëy na daf ñuy gën a yàggal moo tax mhm. mais mën nañu koy xoolaaleen muy illustré wu euh, ba tax na génn nañ aussi ci mbedd yi di daw ak mu mel ni tam ñooñee am na ñu bari ci internet yi ne leen nañu nañu def ndànk parce que du jour boobu la ñu wax ni ki démb wala tey mercredi lañ leen wax nañu ko commencé mhm. mu mel ni aussi ñu bari bari bokk na ci ay artistes ñeneen ak ñeneen dañoo jël mbir mi daal ne rek ñoom xëy na kii di Ousmane Sonko a bëgg am na leneen lu ci lu ci làmbu euh, Salma mooy euh, lu ni mel mm-hmm. bokk na ci lu ñu yàgg nemmeeku mm-hmm. du loo xam ne nii lu yees la fii euh, ci àdduna wërngal këpp ndax nemmeeku nañ ko ca France Chili bokk na ci Nouvelle-Zélande bokk na ci ay dëkk-dëkk yu bari ba tax na sunu mbokku réew yi ñu bokkal dëndu Afrique di mm-hmm. Gabon rek ci li nga xam ne moom moo di Covid 19 bi ba mu amee bañ leen sonnalee lool ci ay tëj ji bokk na ci loo xam ne utiliser nañu ko ngir wane seenu colère. Mhm. ngir wane seenu lii pour dire que c'est pas certainement di nga ci mën a sànni sa kàddu parce que Aliou Sow dina ci dikk ci actualité yi. incha allah nekkoon information yu am solo Coro Mokho Mandela di la jaajëfal bu baax a baax. jëf am mhm. nañu mbégte rek comme ni ñu ko waxee contenté. ñëwoon ci toile bi di joxe dig daje incha allah jeudi ak beneen toile. bu soobee suñu borom ñu jëli tout de suite actualité.